بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 mbokk yi ci yàlla gannaaw bi ñu musula seetaane ci yàlla ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen mbokk la Amath Kébé ñëw ak yéen ci seen programme bi nii di Alhuda ci fii nii ci seen BNC VIP magasin wala seen BNC TV mu nekk online TV nag gannaaw bi nga xamee ne nekkoon neen ci jafe-jafe di mbas bi di feebar bi nga xam ne tejoo neen jumaa yi lu mat ñaari weer wala ñetti weer lu ko jege tëjoon neen jumaa yi te jàkka yi nekkutoon di julli juma gannaaw bi nga xamee ne nguur gi joxe na ak oyofal goo xam ne nee na ñu ubbi jàkka yi ak juma yi loolu moo war warloon tey suñuy tànk fii nii ci juma bii di Medical Store nekk fii nii ci kóotu te nag ñu ngi bëgg a ñëw ànd ak yéen ci imam bi ci xutba bi nga xam ne moom la ñu am muy imam ñang te moom leen war a ànd ak ci seen programme bi nii di Al comme ni ma leen ko waxee woon rek moom dina ñëw ay façon yu ees always rek lu est la moo ñëw ak ndax ñun ay ndaw leen te dañu war a ànd ak jamono ndax ndaw ñi ñoo yor jamono kon su ko defee rek ngeen may ñu seen nopp ak seeni bët ñu ànd ak imaam ci xutba bi nga xam ne moom la ñu ànd ak moom su ko defee rek ànd ak moom ci xutba gi. xamoo kañ ngay dee fan ngay dee nan ngay deewee ban waxtu ngay dee bi ngay wéet jabaru jàmbur soo fa xalaatoon dee doo ko def bi ngay ñaay ci kër jàmbur bi ngay dem ci sëriñ bi ne ko liggéeyal ma diw. soo xalaatoon na yàlla rendez-vous am mu ngi lay xaar te malaaka yaa ngi sa bii mu ngi sa raayit bii mu ngi sa lef allahu akbar <laughs> ndeysaan yàlla mu ne waaye nag walakin aksara annaasi laa yaalamuuna te pourtant nag yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia yàlla mu ne loo leen wax ci mbirum aduna ñu ne xamuñu ko waaye seen maanaam mbirum alaxira waaye seen mbirum aduna lépp la ñu xam yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia waaye nag wahum anil axirati xaafiluun kër gi loo ko jëndee nangam la oto bi nangam la bi may tukki nangam laa tukkee sama doom nangam la may yónnee waaw nangam laay fere jabar bi nangam laa ko takkee mobile bi nangam laa ko jëndee laptop bi waaye soo la waxee xab la wala baada nan la ñuy sujjatee nangam nan la ñuy sangee néew lan la yàlla wax ci lii ñu ne doo xaw ma jànguma xaw ma jàngu ma yàlla wax na dëgg kon yàlla mu ne seen mbirum àdduna yëpp xam ngeen ko waaye àllaaxira ngeen ko sàggane yàlla mu ne xanaa yéen du ngeen seet ci seen bopp ci seen bakkan ngeen waaru ngeen xool man yàlla ni ma tagg ni ma sàkkee juróom-ñaari asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf lii rek doy na jullit mu yéemu mu ragal yàlla mu dellu ci boppam wa ma baynahuma lii yëpp yàlla mu ne sàkkuma juróom-ñaari asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf yàlla mu ne defuma ko lu dul ci dëgg nde kon nekk leen ci dëgg ngeen di dox ci dëgg waaw te lépp nag maa ngi ko defal àpp yàlla mu ne taayam bii di dem ku nekk ci yeen dafa am taayam te taayamam su jotee rek kak man mii di wax ak yéen ku nekk dañ laa nattal loo war a nooyi jéego yoo war a dox loo war a lekk loo war a naan lépp kenn suñ ku nee bés bu nekk yaa ngi yuus ci liñ la nattal te mu ngi jeex te kenn suñ rek liñ la nattal kenn dootu la nattalaat te bés bu nekk yaa ngi koy yuus kon kay ñëpp xam nañ dafaa jeex loolu lu mu tekki mooy dañ fiy jóge ñun ñëpp gëm nañu dee waaye gëmuñu dekki waaye kay dee kay ñun ñëpp de ñun ñëpp gëm nañ ko jàkk bi tey ñu fi nekk sa baay su deewul sa maam dee na sa jabar sa xarit wala sa doom waaye lu ñu ñàkk gëm mooy dekki dajak yàlla subhaanahu wa taala lii la jullit war a gëm soo gëmee dekki rek dina am loo deful dina am loo waxul yàlla mu ne lu ne dama ko defal app waaye lu gën a bëri ci nit ñi xamuñu ne man subhaanahu wa taala dama defal app te dañ koo weddi mbokk yi ñun ñëpp nañu dellu ci yàlla subhaanahu wa taala nañu tuubal yàlla ñu rafetal jaamu yàlla gi wallahi ñu xam ne ñun ñoo gën a tuuti si jaamu yàlla yi ñun ñoo gën a tuuti si jaamu yàlla yi wallahi ñun ñëpp li yàlla waxoon yonent yàlla Muusa yàlla ne Muusa ki ma njëkk sàkkam suñu maam aadama ba koy mujjee juddu ñii ñëpp su suñu nekkoon yéeféer weddi ma du yàq ci sama nguur gi dara man subhaanahu wa waaye ñoom ñëpp suñu nekkoon jullit gëm jaamu ma du yokk ci sama nguur gi dara kon lu muy tekki mooy ñun ñëpp nañu topp yàlla topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi mu neñu képp ku topp yàlla képp ku ma topp man yonent bi yàlla nga topp waaye képp ku ma mooy man yonent bi mooy nga yàlla subhanahu wa taala ku topp sa njiit waaw njiit nañ ko topp de ku nekk nanga am njiit njiit na nga am sëriñ waxuma sëriñ baaxul waxuma njiit baaxul waaye sa kuy nekk sa njiit wala mu nekk sa sëriñ xoolal fan la teg tànkam xool ko bu baax de su nekkee su nekkee soo nekkee sa sëriñ teg na tànkam ci yàlla nee na yonent bi neena na waaxul topp ko waaye su moyee rek moyal de waaw su moyee foofu rek mooy ko moom yàlla nañu yàlla jubal yàlla nañu yàlla may dégg ak topp lépp luñ fi wax mu jub ci yàlla la subhaanahu wa taala lépp lu dëng si ñun la ñu ñoo motul ñun ñëpp nañu dellu subhaanahu wa taala ñu tuub ñu ñaan yàlla ñu xam ne daal tuub rëccu lay àndal tuub rëccu lay àndal tuub du astafurullah rek gaa naam astafurullah baax na waaye nag tuub dafa am ay charte waaw tey tey ñëpp am nañu fitna amul ku tiitul tey ci àdduna bi suufu yàlla bi waxuma la sax julli di waaye ñu julli sax tiit nañ te lii kenn xamul fan lay yem kon li ñu war suñu bëggee yàlla teggal ñu ko faaw ñu dellu ci yàlla tuub ñun ñëpp ku nekk si nga rafetal sa digganteeg sa borom nga rafetal sa digganteeg sa morom rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار اللهم إني أسألك الهدى والتقى والغفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والغفاف والغنى allahuma inni asaluka ilman nafian wa rizqan tayiban wa amalan mutaqabila allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fi lalamin innaka hamidun majid inna allaha yaamuru bil adli wal ihsan wa itaai zil qurba wa yanha anil fahshai wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu yaalamu ma tasnaun qumu ila salatikum yarhamkumullah nokki ku nekk si ñun yàlla moo la gën a jege sa bopp waaw ñun julli nag bëggante wuñu lii rek feebar la kenn yéeneetul kenn jàmm sëriñu tariyax boo dem jullit la moo walla ju wala def na boppam jullit kuy dem foofu pour mu liggéeyal ma diw kooku def na boppam jullit mbañante bi bëri na iñaan bi bëri na soxora koo ëpp garaat nga dem liggéey ko koo koo yaakaar ne moo la ëpp wërsëg nga dem suulal ko waaw génn leen ci mbedd yi rek fajar bi ay guro ngay romb ay nen ak lu kenn xamul ngay romb waaw ci foo janson yi lii yëpp am feebar la waaw duqful imaan mbokk yi suñu ngëm yàlla moo feebar te yàlla lu tax mu woowoon ñu ngir ñu baax la lu tax ñu war a topp yonent bi ngir mu baaxal ñu mu jubal ñu waaw yàlla mu ne na ngeen xam ne nag yéen ñëpp man ak yéen bes dina ñëw dee ñu pàng ci kanamam wa ilayhi tuxsaruun ñu ñëpp dañoo rëcc daw rek waaye bés dina ñëw ñun ñëpp dinañu daje kanam yàlla subhanahu wa taala yàlla mu ne wattaqu ragal leen fitnatan fitna wattaqu fitna ndeysaan lii kay fitna la fitna kenn wóolootul kenn fitna la yow benn borom kër amatul dal sa njaboot mënatoo yar sa njaboot bu jigéen suñu génnee xamoo ci lu ñu nekk génnal ci mbedd bi tey ñiy sollu xaraam yëpp ay doomu jullit lañ soo demee ci bërëb naanu naanukaanu sàngara yi ñu ci gën a bëri ay jullit lañ sàngara bi ñuy naan ni yàmbaa beeg lépp lu xaraam tey ñuy wax ne ay jullit ñoo koy def xanaa yàlla nag nekkatul yàlla man laaj leen ndax yàlla nekkatul yàlla yàlla mi alagoon xeet bi nga xam ne góor jigéen yaa lañ doon def yàlla yónni malaaka mu dëpp suuf seen kaw te tey dem nañu ba am na pays Afrique yoo xam ñu ngi koy bëgg a daganal am na ay doomu jullit yoo xam ne loolu mooy seen liggéey te yow waajur bi xam nga ko amaa bitim réew la koy defee wala fii la ko te mu ngi lay yónnee yaa ngi lekk safara ñaata nit ñoo fi yore seeni doom day guddi dafa day gàddoo baagam dem ne damay liggéey xooloo sax lu muy liggéey mooy jënd maalo mooy jënd kaspawa mooy jënd lépp nga ne kii mooy doom bu baax bi te jigéen la te laajuloo ko lan lay liggéey ndeysaan yow na nga lekk rek waaw paa bi moom nañ ko jëndal saaku maalo rek <laughs> yàlla mu ne ragal leen fitna wallahi fitna bi nga xam ne su ñëwee yéen ñëpp lay yóbbaale waxu yàlla la feebar bii tey fan la jóge ñu ne fi mu jóge xool leen fu mu jóge ba mu laal ñu kon kay yàlla wax na dëgg nangeen na ngeen moytu fitna fitna bi nga xam ne su ñëwee yéen ñëpp lay dajale te na ngeen xam ne man yàlla ku tar mbugal la wallahi yàlla mbugal nañu yàlla yàgg ñu yàlla nag ñu yërëm nga teggul ñu feebar bi mbugal nga ñu lii rek mbugal la <laughs> yàlla mun a yonente bi waxal sama jaam yi araamal seen boroom araamal ci araamal na ci yéen fawaahish ndax bàyyi nañ ko qul innama harrama rabbi al fawaahish yàlla nee na bi waxal sama jaam yi seen boroom nee na nañu bàyyi ñaaw téef nañu bàyyi njaaloo nañu bàyyi jëwante nañu bàyyi bañante nañu bàyyi lépp lu ñaaw ndax bàyyi nañ ko <laughs> maa zahara min ha wa ma batan li ci feeñ nag ak li ci nëbb waaw yaa xam am nga alal nga bàyyi say jabar fële mun nga loué hôtel wala mun nga loué néeg yi ñuy loué xaw ma xaw ma nuñ koy waxee néeg yi am fii ci Gambia soo buggee dem foofu nga loué nga dem fa yaa xam nga nëbbatu waaye yàlla gis na la bi nga yoree sa téléphone di seet message jabar jàmbur wala di ko whatsapp yàlla nee na lu feeñ ak lu nëbb yëpp xam naa ko man yàlla maa zahara minha wa ma batan te ñaaw téef bu nëbb ak bu feeñ yëpp baaxul yow jullit na ngeen bàyyi bew xoolal ndeysaan bew tey ku la ëppale rek won la ko am na ñoo xam ne tey seen dëkkandoo yi xamuñu sax nan la tudd ndax alalam otoom këram amula kenn affaire waaw ndax bew na waaw nit bew na sax nga ngir xam-xamam am na sëriñ yoo xam ne wala imaam yoo xam ne suñ lay nu catu baaraam lañ lay nuyoo yaakaar nañ ñu ngi wax ci mbooloo rek ñoom ñoo gën mbooloo mi déedéet beew la mbooloo bi ngay waxal am na si ñoo xam ne ñoo lëpp xam-xam foofu yow mi di wax fi su nekkee alal la bul génn sa kër soo génn di nga romb loo moomul loo moomul dina romb kon kay seytaane rek waaye fii àdduna kenn amul loo fi bew ndax loo fi am am na ku la ko ëppale islaam ñëw dindi loolu ndax xam na ne beew feebar la kon yàlla tere nañu ñaaw téef tere nañu bew bew boo xam ne àndul ak dëgg yàlla tere nañu bokkaale ñun ñëpp tey ñu bokkaale koo laal ndigga mu ngi fees del ay téere koo fi wax sëriñam lay waatee maamam wala baayam diw laa yaakaar diw laa yaakaar tegaloo ko fen yow yaakaaroo yàlla yaakaaroo yàlla yàlla bi lay wéttal fi nga wéetoon yàlla bi nga xam ne bi ngay wéet sa biiru yaay moo la fa wéttali war ngaa fàttaliku tamit soo duggee bàmmeel yàlla moo la fay wéttali kon soo wéttalikoo keneen wala nga yaakaar keneen nga yenu keneen ku dul yàlla war nga yàlla bi nga nekkee toq ndox nekk toq deret nekk lumbu deret nekk suuxu yàpp yàlla sol ci yow ay fenêtre sa biiru ndey ngay wëlbatiku kan moo fa nekk sa sëriñ fekk na la fa sa ustaas fekk na la fa sa imaam fekk na la fa bi sax fekku la fa allahu subhanahu wa taala allahu subhanahu wa taala bés lay yeew ba nga dëgër summi la ba nga set laab la raxas la fatt say nopp allahu akbar la dem gasal la pax bu xat bu xóot suul la foofu kenn du kenn du ne suulaale leen ma du sa jabar du sa doom du sa xarit du président du ministre amul ku lay bëgg ba ne diw mii tey suulaale leen ma ak moom amut kon ku ne si ñun war nga fàttaliku ñaari wéetaay yooyu biiru nday ak wéetaay yu bàmmeel allahu yi subhanallah ak bokkaale yàlla te di di di di bokkaale yàlla li nga xam ne yàlla wàcceewu ko ci téeréem bi walla ngeen di wax ci yàlla lu dul noonu di fenal yàlla wa an taqulu ala allahi ma la taalamuun lii yëpp yàlla tere nañu ko te lii yëpp tey mbindeef yaa ngi koy def tey am na sëriñ yoo xam ne lu ñuy wax yëpp seen neexaayu bakkan na seen poos duuf waaye ñu yàlla yaa xam xalif général nga nag yaa xam imaam nga yaa xam ustaas nga nekkal ku la neex comme da nga ne yàlla nee na yonent bi neena na ko teg ci quraan ak sunna lu dul loolu rek fen nga lii la rek wa an taqulu ala allahi ma la taalamun waaw bul tey aaya yu la neex rek nga firee ko num la neexee ngir kii mu am alal waaw man tey su ma fi deewoon ñoom imaam ndaw tuuti ñoo ñëw wàcceel ma kaamil waaye borom xaalis su fi deewoon allahu akbar waaw ah, xam nañu envolé bi dafaa duuf kenn du fa xëj suñu ne tey lañ koy jàngal kaamil kër gi yëpp dafa fees ndax ay cadres si dina ñëw enveloppe ay thousand thousand waaye man mi nga xam ne sama nelaw doyul gaawantu leen ñu suuli ko la ñuy wax say salaatul faate sax du mot naaj bi dafa tàng nañ dem suuli ko ñu dem suñu yoon waaw da ngay dugg ci bàmmeel sax nga gis nit ni ñuy yàkkamtee naaj bi dafa tàng dem waay oo oh, oh. ñii dañoo bëri wax ñaan bi bëri na waaw te yow tey ki nga taxaw di ñaanal ba nga ëllëg dinañ la taxawal foofu ndeysaan même jàkk yi tey nit ñi dañoo xat xutba bi dafa gudd kii rakkam yi dafa gudd waaw bañ nga jox yàlla benn benn 15 minutes yaa ngi jox seytaane one hour wala 45 minutes ay maaj ay dem bij ay seetaan ay film <laughs> waaye yàlla moom noo ko may benn 5 minutes ndax xutba bi non nañ dem bële juma non pas bële moo gën a gaaw ay rakk <laughs> bi ñu nekkee xale amoon nañu benn jàkk 404 lañ ko tuddee woon. temps ñu nay xal lañ taali bi suñu bëggee julli booy nañ dem jàkk pas 404 waaye foofu moo gën a gaaw ah mooy moto yu gaaw yooyu boobu lañ tuddee woon jàkk boobu 404 <laughs> yàlla nañ yàlla jéggal yàlla mu ne ak beneen bàkkaar di bokkaale yàlla li nga xam ne yàlla waxu ko yàlla mu ne ak bàkkaar bi nga xam ne ngay ngay ngay ngay dëngoo ak say waajur lii yëpp ñu ngi koy def moo tax yàlla subhaanahu wa taala teg ñu ay nopp ak ngeen di wax ci yàlla loo xam ne amalu leen ko xam-xam yàlla mu ne walla ngeen di rey seeni doom ngir ragal xiif allahu akbar yowmal xiyaam doom yu bari bëri ñu layoo ak seeni waajur ndaxte am na góor yu ñàkk faayida ba suñuy seeg seeni jabar seen jabar daf leen ne bëgguma am doom dañuy sol ay kapoot dafa xaraam ci islaam su nekkee ko jigéen ki amul ngànt jigéen yu fi naan ay doom ngir bañ a am ngir ëmb te ñu ngi am borom kër seen borom kër yëgu ko ñëpp ñu ngi rey ay bakkan wala taqtulu awlaadakum min imlaaqin yàlla mu ne nahnu narzuqukum wa iyaakum bu leen ragal bu leen rey seeni doom ngir ragal xiif wala ñàkk waaw léegi jamono bu neexul tubaab yi ñooñu ko dugal rek waa ku nekk na am benn doom ñaari doom ndax léegi soo amee doom yu bari doo leen mën a dundal yàlla ne déedéet bu leen def loolu yéen bokku leen ak ñooñu ndax yàlla man yàlla maa leen di wërsëgal yeen waajur yi man maay wërsëgal doom yi yàlla mu ne wal bu leen jege ñaaw téef lu feeñ ak lu nëbbu te nga ngalawaay bu leen rey seen bopp buleen leen seen bopp rey sa bopp weesuwul di nekk ci bàkkaar rey sa rey sa bopp weesul ngay jëfandikoo loo xam ne su la ci dee fekkee soo dajewul ak yërmande yàlla safara nga jëm yaa ngi rey sa bopp ñaata nit ñoo fiy te cigarette bi ngay tux ñu ngi ci bind baaxul daf laa rey am déet jànguma farañ de waaye ñu ne paquet cigarette boo jël ñu ngi fa bind cigarette daf laa rey waaw yow jullit nga xam ne lii daf lay rey yaa ngi koy tux waaw yàlla mu ne bu leen jegelu xaraam de bu kenn ci yéen jegelu xaraam li ma leen wax fii yëpp yàlla nee na nañ ko bàyyi ku nekk suñu na xool ndax bàyyi na ko wala bàyyiwu ko yàlla mu ne zaalikum wasaakum bihi laallakum taaqiluun yàlla nee na gis nga li ma leen limal fi su suñu xutba bi bu mu commencé à ba léegi yàlla ne lii laa leen waar lii laa leen digal na ngeen ko def su nekkee ay borom xel ngeen <laughs> allahu akbar yàlla waxul ak dof de yàlla waxul ak mandikat yàlla waxul ak big boy wala xaw ma big man non yàlla borom xel lay waxal waaw ndax yàlla xel lay atti ëllëg du atti dof <laughs> mbokk julli ñun ñem nañu bokk xam ne rendez-vous yàlla du su ñu xamee ne nag rendez-vous yàlla du fausé te yàlla wax nañu ne képp ci yéen ku jëf-jëf dinaa ko ko fay amaa jëf ju baax wala jëf ju bon yàlla mu ne su ngeen yom yowmal xiyaam kay fay kay di ngeen ko jot moom ku nekk di nga jot sa salaire li des kay nga kontaan sa salaire wala nga ñàkk cee kontaan ndax fii loo fi jëf dinañ la ko fay ëllëg fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara kon boog waada la laa yuxlifa allahu waadahu te rendez-vous kenn suñ ku ne rendez-vous yàlla dogal yàlla mu ne man duma ma fausé rendez waaw yàlla man du ma fausé rendez-vous yàlla subhanahu wa yàlla mu ne waaye nag ñu gën a bëri ci nit ñi xamuñu ne man yàlla duma ma fausé rendez gis nga nit am na looy def ñàkk gëm yàlla la rek waa mbokk yi kon gannaaw bi nga xamee ne ana neen déglu lii nii di xutba imam bi su ko defee rek ñun ñëpp ñoo ko déggandoor comme niñ ko déggee ni ko imaam waxee rek mu doon mu wax wax joo xam ne wax ju am solo la nga xam ne jamono ji li nga xam ne moo nekk di dox ñaaw ñaawteef ki bari na bari na ba fi bari yem te dafa jéggi dayo trop ndax boo seetloo ni ko imaam waxee rek surtout social media bi nii ci la yëpp di xewee lii baax ci lay baaxee ci lay yàqu ci lay yàqoo imaam mu ni danga nga gis fi ngay jamono ji ngay teg jabari jàmbur ji ko di ko call video call voice call voice mail yëpp borom bi subhaanahu wa taala mu ngi koy seede bi ngay type di binda ne ko ñu daje place sàngam imaam mu ni place yi nga xam ne ci leen de daje Sénégambia bi ci hôtel mu ne kër gi xamu naka leen koy waxee waaye dinaa la ko wax oustaz mooy guest house mooy guest house yi foofu noonu lu bëri moo fi de xew kon ñun ñëpp ñoo ko déggandoor nañ bàyyi suñ xel ñu jaamu yàlla ñu xam ne yàlla daf ñuy bind pour ñi jaamu ko wa ma xalaqtul jinn wal ins illa li yaabuduni yàlla mu ne bind mu nit ak jinne lu dul ñu jaamu kon nen jaamu yàlla ndénkaan yi nga xam ne moom lañu imaam wax nen fexe ñu topp ko di koy def wax na fi imaam wax na fi yu bëri njaalo beeg tux beek naan sàngara beeg yépp imaam wax na ko kon yàlla yàlla defa dégg ak topp rek ci yi nga xam ne wax nañu ko ci seen programme bi nii di seen BNC di alhuda kon su ko defee rek yéen ñi seetaan kenn ku nekk rek am nga sa jàngat boo si def waaye ñun suñ jàngat bu ndaw boo xam ne ci leen amoon rek moo taxoon ñu ne xaaral ñu isi leen ko su ko defee ñu tëjee fii ni programme bi rek ba beneen aljuma incha allah rek seen mbokk la seen taalib Ahmad Kébé asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu